lundi bu neexee à intersyndical bi dinañ dugal préavis de grève bo xamanteni point yépp nga xamanteni wax nañ ko ci su sa farawul bu maté inshallah allahu rabi lawoon fa woon la ba kérok le président de la république ñëw àddu ci Dakar def dik ñu bëgg ARMP nak ñom ñëpp ñu ñëw audit de kër yi comme niñ ko daan def parce que feu Christian Salvi mais arrêté nañ ko fi ci ay ay ay gré à gré DSC bi arrêté nañ ko ay gré à gré. Euh, amin tey jii arrêté nañ ko tey jii moo yoroon service juridique mais tey te ñooñu defuñu woon mais tey kii li mu def mi ngi ni fang boobu ba léegi kenn mu wax ci kër gi léegi dañuy demander le président de la république bu fekkee patrimoine national la wala moom turam lañ ci bind mu wax ñu ko. bi muy doxal dëppoowul ak fi nga xamante ni kër gu nar a naat noonu lay demee cela veut dire mooy tey 475 bis yi automatique la président indi jox ko. tey actuellement li nga xamante ni moom mooy daw ci réseau bi matul sax cent quatre-vingts gi ci des yëpp dafa paan bi ma njëkkee génn di ko wax dafa ni day wax rek oto yi nawet bee tax ñu ngi leen denc ci biir dafa naa nawet ak léegi yàgg na tey kaar yi dañoo paan deux mille yi moom la ñu waroon tabaxee direction générale lool la waxoon mu wëlbatu ko waat ne deux mille mètres yi sax encore mille mètres yi dañ koy jox wa statut redevance la wax ba fi may waxe yow tay mhm. wa SGBS plus de 500 agents ken fay xuur kii di suñu directeur général kan la faale kan la topoto moy ku and ak mom ci limu bëgg koku la topoto ak fo mën nek nak nag mën na ànd ak yow